dimbal doomu aadama la. mi ngi noonu ndimbalu yàlla du ànd ak coono. du ànd ak maa tax yaakaar naa ne. loolu tamit ba tey alxuraan a ko wax. waaye sëñ bi biteel bi moom. moom miin naa ko loolu yàgg naa koo fekk kër ga fële ca Ndakaaru. ba tey mi ngi ak yow yaakaar naa ne bokk na ci secret yi nga xamante bi nii moom doo ko bàyyi ginnaaw. waaw biteel bi moom moo daan te dama may lu ne. Hmm. xam naa du ma nit ñi sax xam naa ñu sant Fall yooyu dañ ma daañu daañu daañu daañu daañu daañu ma kàlla sant Guèye ak. tey sant Diagne xeet yooyu waaye. Mm-hmm. dama ci am nax it teraan am naa ko ci. waaw ku yàlla dogal xam na ko moo xam góor nga. Mm-hmm. nga juróom-ñaar fukki mm-hmm. lu ko ëpp. wala sa néew. wala maa ngi jégalu ci kàttan gi sa awra dellu. wala ngay sëy di gaaw a daanu. wala tamit sa ndox mën feebal. wala yëgoo bànneexu sa yëpp la yàlla dimbali ko jot bu téléphone. yaa ngi wax jafe-jafe teg ko ne. Euh, lii nii yaa ngi wax jafe-jafe lii nii. waaw ah. yàlla dafa damaa nattoo dama ka liggéey ci ay alxuraan na wayzidukum xuwwatan ilaa xuwwatikum mm-hmm. ak inna xuwwata lillaahi jamiian ak yeneen yoo xam ne mënuma kaa tudd. Mm-hmm. képp koo xam ne jox naa la ko fi ko naan fi nga resinta am. maa lay ziar. waaw sëñ Xaadim sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur euh, di ñaan sama papa fu mu nekk nag fu mu dem gënal ko fu mu jógee ak ñoo fekk ak ñoo fa fekk yëpp. di ñaanal mboolem doomu aadama di ñaanal jàmm ci réew mi di nag samay doomu aadama yëpp Asinaa Boroom Ndoukoumane nag nee naa dinaa fa ñëw nag géej naa fa lool waaye war naa faa ñëw di leen siyaare Ndoukoumane transit di nuyu nag samay supporters samay ñëpp di nuyu sama famille sama jabar sama doom Ibrahima sama rakk Nicolas maam yaa ngi Linda ak euh, Lora Sano sama yaay nag di ko gërëm bu baax sama yaay ko sonn ci ñun la macha allah jigéen ñu mun góor waaw maman Thérèse siyaare naa la bu baax a baax di nuyu sama mag bu góor Ibrahima waaw sama gaañ la ñoo bokk ndey ak baay mi ay xarit lañ di nuyu ci borom ak rak ak doomam lu raasanu maam Lamine Sarr maam maam Lamine Dione maa lay nuyu bu di nuyu sama yaay Suzanne ak sama bi ma yar nag Xaadim siyaar naa sëñ Modou Kora ak borom daaru siyaar naa ñëpp waaye waa réew mi yëpp ak biti réew bëgg naa Papis dimanche ñu dem ci combat bu mag bu doo war a dox ci diggante Ama ak Gris euh, ñoo gis a ñaari mbëri fan ñi fan ñi passé waaw kii naka Xaadim ñaari mbëri Ama ak nag dumu leen gisee ku nekk dafa nekk ci forme gir yi boo ko xoolee jàkka bu dee ay karaax sax di nga xam ne kii rek jox na combat bi cër bu dee Ama tamit boo ko xoolee nga xam ne jox na combat gi cër te am na ci cawarte sama gis gi nag ne naa la combat bi di yomb waaw. lu koy jafeel jël mun naa yomb waaye nañ ko préparé combat bi nu yomb parce que combat préparation dafa yàgg ci biir géew xaarim dugg bi eh, préparation mystique bi tous bi va et yi. balaa combat di ñëw kon nag combat bi day jël temps dina neex comprendre bu baax moo tax ma ne la du yow jël mun naa yomb waaye combat bi du yomb ndax ku nekk da ngaa pare te di nga gisee ni Gris parewul daanu de parce que jeexalagul ci làmb nee na boo gisee ni mu préparé wee chaque combat nag ñoom ñëppay préparé waaye dina am façon boo xam ne boo ko defee rek naan kii am na fu mu teg combat bi waaw am na fu mu teg combat bi daanu. waaw Gris am na fa. kenn ci daanu ñoom ñaar. ñoom ñaar waaye boo xoolee tuuti avantage nga jël âge Gris bu doon bàyyi lamb tey Gris moo njëkk a bàyyi lamb ndax âge am kon nag enjeu bi day gën a bëriwee day gën a uppee ci Ama comprendre nga bu baax mooy ndaw buy dem kii lu mu dese ak lu Ama li Ama dese ak lu Gris dese bokkul waaw kenn bëggul daanu kenn warul daanu waaye incha allah kenn dina daanu moom waaw match ni amatul ci lamb parce que point am na. voilà gis nga open noo gisee fu état nekk ci moom fi mu toll nii. Ama nu mu def nii dafa neex. nu mu def mel nii nii nii franchement neex trop antal na boppam yaram bi yem na fu mu war a yem normal Ama ngi noonu lii mooy Ama Baldé doo gis dara mu yëngatoo nga def yi am na faay wala nu mu yëngatoo fii tànk bi am na problème wala nangam déedéet yow mënoo koo jugé ci dara nii nii waaw dañuy ñaan kañ yàlla may leen gudd fan yàlla may leen gudd ñëpp may ñëpp gudd fan ak fekkee. talak fekke daal waaw mais instant mu Ama mu ngi ci forme mu ngi nice waaw Gris Bordeaux tamit da nga naa gis na open presse am ñoo bokkoon jour ah defagul waaw ah, point de presse dafa doon def noonu waaw point de presse damaa gis benn kii image boo xam ne dafa ànd ak Gris Gris 2 mosoon mbaxane ak beige waaw ak kilote mais foofu tamit moom ragal naa dinaan fu Ama Baldé tëb rek mën na faa moom waaw parce que boo xoolee yaram gi nu mu ko def nu mu ko maintenir rek ah combat bi du yomb. non du yomb parce que combat boo ko xoolee ñoom ñaar dañoo xaw a jàpp benn bëri boo xam ne dañ ciy nuróole. ñu ne la Gris des chances rek de affaire rek faay rek laay gis si Gris Bordeaux Gris boo ji boo ko jëlee subitement mu war a ñëw si yow ci gaawaay munu ko arrière bu gaaw Gris munu ko kooku nag technicien yi làmb yi war nañ koo xam parce que tànk yi tooloowuñu yàlla na mooy bi ne mbir nu ko neexee. waaye gis na nu tànk yi mel mel noonu noonu du lu garaaw nag de non noonu la kaw gi bëree doole parce que boo xoolee ay làmb Gris Bordeaux Gris Bordeaux bu nga roo foofu lu mu jàpp ci yow da lay ëñ xam nga guy yi day bi waaye Gris day ëñ te bu la ëñee da ngay jóg te fee la lay sànni Gris mënu laa daan eh, sur place Gris foog mu téye la action am da ngay dem soo ko àgg teer sa ginnaaw ngay daanoo Gris Bordeaux noonu lay bëri lu mu ko gis yëpp. man lu ma gis yëpp muy bëri def tamit Khadim da koo def lu bëree bëri gis naa ko mag baabooy wee def na ko baabooy ay yoon yi na ko ay yoon yoon waa baabooy nag moo doon am chance di rëcc waaye loolu laa xam naa mun na ko moo tax tànk yi Ama Baldé mun a jaar gëri waaye Khadim ñeme naa Ama ne ko bu nga roofoo jàppande tuuti tandal plaqué aa <laughs> mbër mën na ko mas na ko daan ci plaqué oh, gisaguma ko lu ma gisagul la. voilà mu ngoog waaw Eumeu waaw côté saako yi ba jéggi saako yi waaw mais lu ma gis la rek lu ma gis go wax Ama waaw dafa am façon boo xam ne boo ko béré Gris Bordeaux genre ñoom Gris nii neex na fa trop voilà plaqué affaire la. lu tax nga ne yi hmm? ba ci kaw la gën a neexee waaye dal ci genoux yi ba ci suuf foofu. ragal naa mook Tyson dañ ko xaw a nuróole waaw doole ji daal fii la fii la gën a bëriwee ci genou yi ba ci kaw léegi plaqué nag ci digg ci bi ngay def léegi da ngay jël mois ci bi kon nag di nga am looy laal ci tànk yi tuuti ba pare tànk yi am nañ tuuti problème défaut moom di nga am mille chance bu àgg bu arrière tuuti rek boo forcé da ngay dem waaw foog nga gis résultat foofu waaw. a jiitu plaqué bi. yombul mais lu tax muy nakari ama bari bu ne di jàppante Gris Bordeaux ama jàpp ngemb Gris jàpp ngemb Xaadim lamb ji après mun nañ def benn une deux boo xamante ne pour nit égali sa morom dina jofete parce que Gris ñàkkul doole jooju te di ko mu ne te ama nekkul mbër boo xamante ne comme genre ñoom Modou loo gi la ñoom Tidiane Faye par exemple. Euh, négocier non du négocier lamb mais comme techniquement gaawaay gaawaay bi réflexe rapidité. ama mënu ko ci làmb rapidité comme cuurug dugg fii comme ñoom Tafa Gueye de non non non non léegi nag gis nga nu muy bëree noonu ak Gueye buñ jàppante ne Gueye tamit dafa solo loolu ci làmb ji moo tax waa dem foog làmb ji naqari tuuti foog mu naqari si ama tuuti waaw parce que bu dee jàppante ngeen rek Gueye da koo soxla te mun na ko léegi nag lu ñuy waxaati xolu mag ak xolu xale ragal naa bëri ci sport ndax Eumeu Sène daf ñëw woon lu garaw waaw ci combat ak Sa Thiès kon nag boo amee hygiène de vie ak âge boo mënti am ci genre âge seen seen âge bi laa ma xaw ma la yenn âge yu nga kii nekkatul âge yu sport waaye âge bi ak hygiène. Gris ñu xoolee ci Gris euh, Gris deux deux derniers combats mi ngi njëkk ba amul jàpp amul nanguwul jàppante ngeen am deuxième combat bi amul nanguwul jàppante est-ce que loolu dina may amaam ñu parce que Gris waaye boo ci xoolee d'une chose d'une part eh, eh, Balla Gaye da ko sut de trop non Balla Gaye sut na ko quoi ci kaw xam maa ne peut-être ñoo ko ñàkkuñu expérience boobu noonu kii su ma jàppee moom gémbu ak njoolaay est que na am problème est-ce que du parce que njoolaay bi waaye boo xawee fu toll ni moom pour mu yëkkate la day yomb waaye bu la bu la gënee bu la boo ko gënee njool noom balaa muy yëkkate loxo yi rek ñooy commencé jeexagum waa xam naa dañ naan lii arrangé wu ko waaw mais moom Balla Gaye boo gisee seen bi am na dara Gris Bordeaux nga xam ne kii am na nu mu joué yoon ci combat bi mënoon na mënoon na daan Balla Gaye ah parce que dem na ba Balla Gaye xaw a réer tuuti ci combat bi waaye moom géej euh, naka continuation bi defu ko. finition foofu moom finition ko yàqal léegi boo ko defee ci xale yi naka day perte làmbam aha Gris daal côté xeex gëwuma ci mu gañe ci Ama Baldé lu bëri de li may gis laay wax. nee nañ moo gën a xeex a jaar yoon ka xeexu Ama. téeméeri junni yoon Gris Bordeaux Sénégal bu mu daj amul ko gën a jaarale yoon xeex xeex ci yoon déedéet box rek lii war door dóor nit ak fu mu ko war a ak heure bu ko war a dóoree ngir kenn dàqu ko franchement parler mais day fekk nit ki dalaa provoqué genre yooyu. mais Ama nu muy xeexee bu doon ñoom baabooy Gris mun na koo def bu dee ñoom Eumeu Sène Gris mun na ko def waaye Ama ñu ñëw di bëriwee di ñëw di laaw di ñëw di doorante di ñëw Gris day mun a am envie day mun a jam waaye nag koo xam ne day daaj day benn bennal mun na ko def loolu parce que taawul benn point boo xam ne day naan rek rek rek gannaaw rek rek déedéet day jam di ñëw te jamu Ama ba lépp xeex boobu yëpp du xeex boo xamante ne da koo téye pour lu muy continuer Ama day jam pour buntu rek la koy wutee waaw am tamit ci xeexam tamit nekkul xeex bu jaxasoo xeex bu ci xeex bi day day tey ci ci ci combat amul ama. du xeex pour kawate la mu nga kaw dëbbu waaye Ama day xeex pour mun laa jàpp loolu dafa ba dafa fooram la mais li ci gën a neex mooy ragalul dóor loo mun di dóor ci moom man da lay fexe jàpp rek. waaw boo amee bunt moom sa xeex pare na ci. moo tax Gris Bordeaux du am chance bu xeex xeex mu soxla moom du ko am ci Ama. ñu imposer xeex bi nag. du ko am Ama day roofoo. bu ñu xañ ko mu jàpp ngeen imposé ko xeex rek. ñu solante ay naax rek ah dina ñamante de waaw mënu ñàkk moom ñamante kurpeñ mënu ñàkk mais xanaa dem roofoo mooy ëpp ci ñoom ñaar mooy ëpp foofee foofu. Gris Bordeaux mënul jouer ci Ama parce que Gris Bordeaux mënul diriger Ama ci làmb ji ni Ama di bëree ba doon ku mel noonu ak moom nga xam ne làmb ji mënul def une minute wala ci une ci la yem mbokk voilà parce que man ñoo ñu ñëw ñu daje accident moom foog mu am ku yàqu oto bu yàqu moom dina am ci accident bi. waaye Gris ni muy joué Ama ak ni muy joué giri mu diriger Ama mooy diriger. yow kay xam nga looy wax Gris Bordeaux naxaar comme am seen kii raxas sax ci sax naxaar bu xam fu muy ñëwee léegi ci biir xaar boobu da ngay xaaree dëgërul waay waaw toog sa tànk bu ba am assise bu baax taaw xaar bu dee nii la ñëwee ci suuf nga jàkkaarloo moom ci suuf bu dee ci kaw la ñëw nga mën a doolu say affaire say pion waaw waaye bu nag xaaru falaa falaa wala ñàkk fit xaar mbaa xam ne mbëri boo gis ci àdduna am nga mbër boo ragal. te lamb ji loolu. ak sëñ Modou Koda mbër bu ko wax ku ne as du ma ne sax da ngay fen loolu du respect ci kàddu waaw du cër ko waaw amul mbër booy laaj ci àdduna am ñun mbër ñoo ngi may dégg man bopp ko wax boo gis ci àdduna sa biir catégorie am na mbër boo bàyyi xel ragal la amul billaay ko abdoulaye bëre simple ak bëre doola ci yem billaay wala talaaxi box am na koo xamante ne da leen ni kii moo la mun te saa ngeen dajee mu daan la parce que am xel ñaar ci moom am amatoo contrôle am sa fit du taxaw moo la mun mbër boo gis am na mbër boo mu ragal moo tax ñu ne la boo tëddee xam ku la mun am na ci ñun mbër yi de. am ñoom léegi ñoom ñëpp am na ah. am na ci ñoom léegi euh, ci combat bi bu fekkee arbitre dafa amaa ñoo indi lu mu am joxe am ko ci giri combat bi jeexul foofu lan moo fay na a xew. xam nga lu ci gën a ne jamono jii mooy temps bi yow di nga espérer mot une heure de temps et quelque di nga contact lu mot deux heures waaye contact yi du niroo parce que lam moom ni ngay taxawee physiquement ak sa esprit sa lépp bokkul ak euh, si le terrain. arène ba waaw arène bon entraînement mun nga def trois de temps am sonn mu wàcce arène quinze minutes da ngaa war a sonn normal dix minutes parce que nu ngay taxawee ak lu nga indi pression merci tu as moo tax waaye nag mi bi da ngay a suuf te xaat guy sport bi am sa conf normal daanaka laa mun nag loo ci bëre bëre bëre am na heure boo xam ne boo àgg di nga waaye ku gën a ku rek la ñuy xoolati waaye sunu mun ci ñàkk ndax roofoo benn ñaari roofoo rek ku nekk sax xol commencé naa génn waaye nag soo ma uppalee cent yaa may gérer comprendre ko baax léegi nag buñ ne ah ama bu defee lu mu am mu am temps ngi dem buñ defaatee toute minute at bi sifflé ñoo attaqué attaqué waat bu attaqué attaqué waat combat bi jeexul nga xool temps biy dem nag bu at bi sifflé nii dama leen ñoppale ko benn deux minutes après dina amaat souffle waaye léegi boo attaqué attaqué waat dara amul te leer na Gris Bordeaux kii def na ñaari yëpp dara amul albit ne pire amal taxaw Gris lu muy xaarate day naan kii amatul dara na ko xool ci condition ba xool ci technique ba kii boppam ubbu na parce que lu mu am yëpp def na ko te gisul dara ab bi civilisé ama mënul kon day xaadim na ci biir lamb ak lu la conseil am na foo xamante ne muy lamb ji déroulé yow yaay yërati sa bopp xam ne lii lii ma fi war a ne ama songu nu ma ñaar songu ñett gisul dara mënul dara ab bi sifle mu ñëw taxaw ay waay xaadim sa kaw laa jëm xam ne kii desetul dara ndax mu ko munu ko lu tax mu def ko kon xam ne fii baare naa ko fépp amatul ci man dara léegi nag xel bi buure jaxasoo na nga def li war loolu moom chance la ci Gris Bordeaux côté boobu mhm. déplacement kat di ko wax Gris Bordeaux Gris Bordeaux warul taxaw ak Ama Baldé naan damay dëgal fii dëgal du yoon bañ déplacement waaw bañ a déplacé du yoon la lamb day laaj déplacement lamb day xaadim nga xam ne lamb day laaj jéggi saako soo ma jekkoo mun naa jéggi saaku yaadim defet gi bugguma ko parce que kenn buggul defet du amee nag jàmbaar nag day naan du ma tiire du ma dem tiro tiro tiro kii tiirage nga daan wala ma daan nga daan ma wala ma daan la waaye xaadim am na nun la jokko waru nga tee ku bu baax ñu door la ko yow gisatoo fu nga ne comprendre saaku yi jóge na arrière nga jéegi ñu jox la avertissement nga nuyuwaat pourtant mun nga ñëw daan waaye noonu dañ laa jox nga ñëw jeebalu ay waaye ndekam jigéen buy sëy ci góor yàlla duñu naan làmb la juma koy def coono ku la gën a nangu coono ci làmb moo la dàq bëri. te xawoon nga Ama dal ci kaw giri combat bi jeex ci premier contact. laay walaay mu la wax moytul ma naax dugg plaqué wala mu téye ngéemu plaqué xaadim ni giri bëddoo façon taxawaay nu muy taxawee ak Ama loolu laa gën loolu laa gën di gis xaadim. nga ne jël nag day bette. moo tax naan mbër bu naan mbër eh, bu nekkee si le terrain di bëre. bul ma safaree kenn mënu maa yenu wala kenn mësumaa kawote kenn mënu maa kawote jël day beete kaw day beete yenu day beete kaw mun naa beete kenn si ñoom waaye lu may analyser làmb dee làmb la lu ñuy analyser te yàlla tax ci làmb ak technique am ama daan Gris doo ragal naa ko ci plaqué ah da ko gën a yombal làmb ji ama mënul yéenu Gris Bordeaux de Gris doo mënul yéenu ama du ma ne antal na ko antal ko de waaye mënu koo yéenu kenn mënu koo yéenu waaw seen façon de faire euh, foofu àggu fa te dañu ay njafraf googu noonu léegi plaque ji wari ndomb plaque ji ngeen continuer pari Dakar jëlee la fi yóbbu la ba fee nga daanu ji fale gën naa neex ci Ama aha waaye Gris Bordeaux ngeen taxaw rek sans déplacement sans déplacement pour mbër yóbbu ko dina jafe de day xool ay làmbu Gris mooy déplacé wu dafay quatre appuis trois appuis nga jékku affaire yooyu noonu waaye gang bëriwul ñu ko bëri juróom la ko daanee gang bëriwul de waaw kooku maa voté premier premier action yi moo ko maye parce que am na fa mu jee ko baala ci coup yi comprendre nga mais nee naa finition lépp looy liggéey ci àdduna te amul finition neexul rafetul waaw début day rafet ah tamit mujjantal nag. finition moo dàq lépp. doomu daanu ko ah doomu daanu mën na ci am. na ne nee ne booy ñëw ci làmb bu xalaatal ne lépp mën naa ne xaadim moo tam bëri wala di naan kenn mënu maa kenn mënu maa door ma daanu wala kenn mënu maa yéenoo daan day bete kon façon daan yi am ci xam xamal ne mun naa ne. sànq ne nga Ama pour mu da nga gën a gis si mu daan Gris mooy mu plaqué ko loo gis si Gris pour mu am dara ci daan Ama. lu mu ko wote ko Gris pour mu daan Ama foog mu rax moom rax bu metti Ama xam nga ko borom fit la yëfu bandi léegi Gris bu dëggale boppam ne kii waruma téye bugguma mu téye fenn indi ay dóoru dóor acca Njaay Jóob Njaay Jóob Njaay Jóob Ama foog pour mu am fu mu téye ci Gris nga du ku yi noonu foog mu xeex ak giri nag bu gisee bunt boo xamante ne foofu noonu bunt moom lay yomb xaadim tànk yaa ngi xeex ci kaw kenn mënul xeex ci suuf ci kaw la ñuy xeexee tànk yaa ngi xeex ci kaw ku gën a bàyyi xel mooy nga lan ngay xool gauche te droite nga jëm maa ngi xeex ci kaw waaye lu may xeexee yëpp ci kaw ci suuf laay jëm waaw Gris Bordeaux mën na ko am ci Ama tey nag dangay naan kii duma jàpp tey léegi bàyyi ma indi ko raak raak bu tàng jër Ama taaw nag ne kii a ma raxa ba mun koo jàpp temps bi envoyé taaw ci raak ngir mën naa suufu feneen mën na fa am dara loolu laa gisagum fu mun a amee dara de waaye suma feneen ne xaadum mais xalaat ñu gëri ñëw indil ko xeex xeexu duma duma jàpp day continuer xeex bi moom xeex bu sax bi waaw léegi boo ko bëggee si làmb ak xeex mu méttee fa nga am condition bi pare hmm, entraînement entraînement toog nga dajee làmb condition làmb képp mënu ko yor waaye mën nga bëre ba sa morom njëkk laa sonn nga daan ko ci loolu ñoo xam ne kii am na entraînement waaye ko lu sonn ci làmb amul waaye Khadim xam nga ku buy dem dal ñaaka dal rek lu muy génne ci yow waaw dañ koy jom boobu noonu foog nga am mu doy dañu wax ne mbëri booy booy bëri ak moom nga nga li mu mën nga ngay respecté ko nga moytu ko dama dégg Ama ci sorte mu ne moom bu Gris xeexee ak moom luy met ci moom lay jógee est-ce que est-ce que loolu du erreur déedéet dañ koy nangu xam nga xaari nga mun dara war ñu naan kii bandi la hmm? xalaatul kenn def ko li wala kenn ñëmu ko nga ñëw affronté ko balaa tout xam nga lu ma njëkk a xalaat waa kii lan la yaakaar bu yebee ma nii wala ñemee ma nii. fekk ci mënu mu ne. nga ne ko fii laay ja waa day naan waa lii kii lii ni mu de kii xam ne lii kese laa mun ne ci àdduna te nee na dee dee dee da koy téye wala da koy jël si. léegi nag yow commencé nga am xel esprit xel de ñaari esprit xel ñaar commencé na ci biir xel ñaar yi gis nga bu ñëwee ba làmb fa dara troisième xel ñëw na jaaxasoo na léegi nag bu ci assuré dëgg te am fitam fitu def ko rek. mën na la ak i moo waaye yow boo ko ragalee ragal bu nga ragal jaar fii rek moo lay moytu bu ngay moytu fii moo lay fokasal ci feneen parce que doo nekk conscience tranquille xaadim lii daan mbër ak lu ko mbër mbër mun mun bu ko moytu boo ko moytoo leneen daan ni la. jël songee ama su xeeb commencé mu wàcc song ah. moo ko ma am caasam ngi noonu foofu lay waxee ak yow sànq ma ne la bu rak bi ne kiriti kiriti kiriti bi ama foog ne foofu lay gëri ba taxaw rek am dara moom ñu ko song ñëpp damaa gis mu daan la waaw ku nekk sa façon ni ngay song da am na yoon xaadim am na yoon nee naa la miir kenn du ko wetu miir dafa am na koy poids lourd dafa am na koy songee poids léger am na na koy songee waaw ça dépend rek ak rek congu ju baax boo siré ak heure songu xaadim du làmb nu la neex lay def tali bi fu ma neex lay jaar oto fekk la fa rëy la léegi da ngay xaar bi oto yi taaw nga mën a jàll wala nga ñaan ñu may la waaw bu dee ràmb ji nag mun ngaa xuus jàll mun ngaa teg sa affaire sañ-sañ jàll waaye nag ak façon façon bi ngay jaale tamit jaa baax na ci de ah boo Bordeaux mun na am lu ci Ama waaw. Papis bu ñu euh, revisité ci carrière Ama combat yi mu passé def ci ginnaawam bu xoolee combat ak Nes moom moom moo nekk premier défaite am su ma juumul combat ba nekkoon combat bu métti te boo xoolee Nes ak ak Gris dañoo xaw a niroo gabarit ñoom ñaar est-ce que tey Ama bu jëlaatee combat ak Nes am na lu mu fa mën a tiré comme leçon loo xamante ni dina ko jëriñ ci combat ak Gris. waaye xam nga da xalaat ci côté boobu noonu mooy xaw nañu niroo gabarit mais yaatuwaayu Nes. épaisse nees bi Gris Bordeaux amu ko ba pare Ama war na fa jàngat benn affaire bu ndaw waaye man su ma nekkoon entraîneur am entraîneur am foofu naa ko jàngal dara xam nga tax Ama da nga ko gis loolu ci nees gis nga ko loolu noonu ci guy gi xaari mënumaa jël làmb ji ko sama kaw xaari am na xam ne su ko defee ci làmb def ko def ko def ko tante samay chance yëpp ba gisatuma dara nekkatul affaire njëmbaar te parce que wane nga ko moom mu saf ak làmb nu mu am na foofu ne dëgg xaari ma ngay taxaw calculé waat xaar mu ñëw calculé waat léegi comme dem naa gis ma fa dara te moom bañ na mun na di bañ sax di defaale dara waaye di ngay bañ rek di bañ rek waaye léegi ma xaar la léegi si xaar bu dee xaar yow boo ñëwee amara ci man lay gën a yooyu pour ma nax la waaw parce que balaa muy gën a neex ngay làmb may làmb foog mu am ku daj ñu diggante waaye kenn kese may làmb su waaye sa daj nag du yombu de voilà waa du yomb moo tam moo ak nees noonu la fa tëddee ma guy gi noonu la fa tëddee ah maa moo bëre bërëb bi yëpp moo daanu daanu gi tamit bu ko defee bu ko defee ci giri ma ne ko hee amal lu ma deux trois songu gisoo loon ne taxawal nga xaar mu ñëw nga xool noo koy def waaw loolu day am loolu moo la ñuy naan meeb waa da may dam lañ meebal songu naa songu ba songu gisuma la ah xaar ma def tëggal benn affaire xam na di nga lekk si boo lekk si nag ma ne la kirtim comme napp waaw voilà nit ki da koy naan lamb naxante la ah mbëri nu ñu mënee bëri bu ñu mënoon noonu jàng école nga gis fa ay ministre ay député ay premier ministre ak yaa ma gën a xam ay ay magistrat am na solo léegi benn question ci foofu la ñuy jeexalee est-ce que tey ngay bëri ak mbër ci ci ci làmb ji mais mbër sa sa wala sa sa koñ am nga am nga sensu am ñu nga xamante ne ñu bi te bëri moom ba pare est-ce que loolu dina dina am lu mu lay lu mu lay jëriñ ak nan nga koy nan nan la lay jëriñee waaw day am xaarim baa xam buggante mbër ak mbër yombul fu nga am xol gu rafet dëgg fu nga xam àdduna forsaxul yaatu pour nga doon mbër yéene sa mor mu mbër di daan di dem ku nekk da ngaa bëgg sa fa fa kii naka favori bopp buñ rombee ñu naan diw diw diw waaye ñuy tudd kee duñu tudd ko loolu lépp mbër bañ na ko day siisu ci xol bi waaye doo ko gaaw a gis moo tax préparé dafa baax ci osool xaadim man yow yow laa war a bëréer ah sama rak maam Mor mi ma dëkkal ci koñ bi bëri mos naa bëri rek yow te ay gaañ lañu war naa am droit maam Mor sa waaye est-ce que am na résistance dëgg samaay bu bu nga duggee ci tànk yi nu mu mel ci yow mais foog Mame Mor nag doon koo xamante ne ku direct la. ku la yéene ku la merci voilà ku la yéene. ba lu mu lay wax du doon foo foo waaw du doon foo conseil na la wax laaj bi Papis saa waay de mu ko roofoo non kaw lu ma teg sama loos diis na wala waaye sa waay nu mu rosoo ci tànk yi. oho waaw foofu mel na ni mel na ni bu la ko tëgalee. Xaadim am nga say portable lépp nga ci YouTube bi nga dem xooliwaat di li sawaay lu mu la munti war di nga gis foofu noonu waaye mbër waroo am combat dafa am heure boo xam ne bu nga ñib see ci kër gi ci préparation entraîneur sa gars yi dañoo war a téye kool yi kii jël combat gi kii jël combat gi kii jël combat yow tamit mbër bi nga jël combat gi ñu xool bu ngeen xoolee bilaay ngeen gis ay fay di ngeen gis foofu mu ne ndax kii am na benn combat kii am na kii am na ñaari mbër a ngi nii man tamit moom sa waay laay bëreel trois mbër ak entraîneur ku nekk tey benn combat ci ay carrière am Khadim neex neex na ci sportif ngay def loolu ci adversaire di nga am lu bër mbër bi tamit moom mbër bi am combat bi warul am oyof tam dem dem jéem a gëstu loolu laajte mbër nag boo diisee ragal naa sa carrière te mbër boo ñaawee njort de toro ragal naa sa carrière ndax après nit ñi dañ la bëgg di daw yaay daw nit ñi de waaye nit ñi ñoo lay bëgg di daw waaye nag ku lay ñëwee pour ñëw la dimbali boo diisee gën a paa yaa paa yaa ngi fi paa bee day ñoo koy tudd de koñ bi la dëkk waaye dégg naa nag mos naa bëre ñu naan kee dégg naa am na xam-xam de waaye dañoo dal tey duñ gaaw dugg nit yow mii xale yaa dem wuti loolu booy ñëw indaale say boisson indaale say affaire indaale say suukar say meew yaa xam nuyuwante jàmm sante naa ah, ah mbir bi ñuy wax ci koñ bi nga ne leen waaw wala bu nga nee nga ñëw présenté wu nuyuwante ba pare bàyyi ko ci biir dem dina laaj ci waa sa ginnaaw noonu ngeen di xamante ak nit ñi waaye boo jëlee sa bopp diisal ko bañ a oyof ci nit ñi suma waaj di nga gis koo xam ne day yéene dix bloc du la ñeme def dara waaw parce que dañ naan kii dégg naa boo ko jegee boo ko jegee nii lay def boo ko jëyee lekk sa nangam nangam xaadim kenn du la jege waa ñaaw njët baax na waaye du 100 pour cent boobu noonu 100 pour ci lamb waaw du 100 pour cent ci bu mu baaxee daal léegi ci waaw ci loolu euh, bu ñu xoolee euh, li ñu waxtaan léegi nii bu ñu xoolee côté Gris am na ci exemple bu xoolee Ama tamit am na ci am na ci exemple ci écurie Gris tey boo xoolee Ama bëri nag bëri naa mbëru Fass trois fois wala quatre fois Tafa Gueye 2 Papa Sow Balla Diouf Balla Diouf euh, bu ñu xoolee giri bu ñu xoolee giri aussi boo demee écurie euh, côté Pikine bëri na fa ak Eumeu seen dëgg la bëri na fa ki nga xamante ni mooy Balla Gaye mhm. kon ku ci nekk am naa sensu dem laajte sa ah, morom sa beneen foofu nan la war a demee ci loolu loolooy mag bu la jiitu xam nga dañu naan mag bu la jiitu ci néegu lëndëm moo la mun a wax fu ngay toogee léegi nag yow mën nga maa mag sax te ma njëkk laa ba rek diw maa la mën a wax ay qualité am yow mun nga seetaan ay qualité am waaye xaadim pratique bi moo gën a nice de te man maa ci ka kon nag ci man bu ñu waxantee ni amul complexe waaye sam bala mu nga bëreeg sa wala omo mu nga bëreeg sa waay omo seen ak ama bala ak ama nice demal ci ñoom waxtaan ak ñoom bu dee nag amoo jot bi amoo jot jëlal téléphone dina expliqué après kooku sax day kontaan day sawar pour mun laa expliquer xam ne kii jox na ma cër kon kii xam na samay qualité xëy bu ma ci sport bi jox na ma sama cëru gona jox na ma sama cëru naag mbër da lay expliquer xaadim waaye non non mun naa li may def ak naam yow loo mun mun mun munoo mun lépp yow comme mun nag nit ñi tey garabam da ngay jéem mu wàcce kii jéemal la mu wàcce nga mun a dem doolooy mboolooy doole waaw loolu bu ko benn mbir rus xaadim entraînement mbir bi daala ci façon boo xam ne comprendre noo ko jëlaat ko mun nga jàng clé clé boobu mun nga ko jàng trois jours ci entraînement da nga koy mookal lu mu lay wàññi kan moo lay photo daan diw ma daane nii diw ana trophée bu ñu koy joxe entraînement du reende te gis a ma da ngeen gis yoo xam ne dañuy dem ko entraînement sax xaadim mel ni ay adversaire lañu te boo ko di waruma daan pour daan jëlee rootal ci diw mu root ci yow ñuut condition ci diw mu wut condition ci yow mbir da ngay oyof ci kanamu nit ñi sa intérêt kese la sa écrit intérêt kese la xaadim walaay talaax yi macha allah am na solo papis merci ma la jaajëfal di la bàyyi nga tàggoo waa laaj gi xaadim di wax di ndokument rek as ndaw di gërëmaade ma mën a njaay sama rak moo fa mos a yóbbu ci àdduna benni as ndaw macha allah saa yi ma demee ci moom moom day rafet day neex yàgg na nag xaalis boobu ma la ay 3 4 ans 5 ans de aha war naa demaat nag wax dëgg na yàlla waaye jibi noonu ak famille am yëpp du mu leen Assane du mu leen bàyyi VIP aha camion waa Fass Dolom nañ ma doon ñëw wala normal waaye ñu ma doon àndal làmb yëpp bàyyi naa nuyoo bi yëpp ci loxo tanis waa Ibrahima ñoo joor jogomaay waa famille ñoo joor gi jonuwaar gi andunole foof mi simna noon a paax a papa bi général waaye mi ni waaye xaar mi naan sama gars yi sama auberge bu nekk sali rek lépp nga fa chambre climatisée piscine yaa nga fa lekk yaa nga fa noo ko buggee rek voilà waaw Moussa Konaté ñoo loo jàkkaarloo côté géej gi en face de la plage voilà contact rek bu soo contacté Papis Général 77 282 13 17 ma teg la ci code voilà yombalal la affaire yi nag nice xaarim kontaan naa si la famille waay sëñ Modou Kora borom daaru di la gërëm nag de yala yàlla fi yàlla bàyyi bu baax a baax ku baax nga ku yaru nga macha allah jërëjëf merci di la jaajëfal bu baax di la ñaanal jàmm bu baax di jaajëfal ñëpp ñu suivkat après diaspora bi ñëpp di leen dig daje beneen ñun beneen invité yi waxtaanu lamb